yàgg nañu dem si autorité yi wax wax wax si ñoom pour ñu jàppale ñu si suñuy mbébét gis nañ ko politicien bu ne gisuñu ko dem nañ si mairie bi gisuñu li ñu diggoon lépp te loolu lépp daal donc ñun j'espère que si Fallou Fallou Barre lañ ko mën a yaakaare loolu lépp mooy suñu courant bi suñu courant bi ay at a ngi nii yàgg na trop fu ne fu ne dem nañ ko fa jooytu ko fa fu ne aw nañ fa yoon bi gis nga ni mu demee fii la waroon a aw tout près mutu sax huit kilomètres mutu sax huit kilomètres mi ngi nii suñ xëyee dañuy dem rapidement dem ñëwaat. primaire boo duggee fee ne porte yi gis nga ni mu xobbeekoo fi yëpp mënoo sax tëj te boo xëyee tamit élèves yi war a jàng. ndox mi ñu wara am pour jangé école bi amu ko parce que dañuy soxla ndox mo xamé dañ koy duy pour effacer tableau bi. placé di root te mo moo amuñu ko poste de santé bi mi ngi ni ay atangi ni ñu tejj ko amoo ko fi faj amuñu garab amuñu dara war nañ koo collecter gisuñu collecter te lo lepp ñun ñukoy dig ay ati at gisuñu ko. ah maire bi mi ngi fi ñew sa yu ñewé day wax dem. gis nañ fi nak ay ñeneen ak ñeneen yo xamni ñew nañ 10 mais ba légui gisaguñ dara ta am nañ yaakaar ne xañ na bii nii moom mooy bi gën ñun lëndëm lañ nekk comme ni ko su kay sekk waxee sàng rek lañu nekk gune te ruus sama classe yi nga xam ne seen i bët baaxul bu jant xasee soo pare nañ fa ne toog rek lañu defaat bu bët set ndax duñu mën a dem fenn yoon wi diggante fii ak jaag suñu xale yi ñu ngi jaag di jàng ñu ngi ngunjaan ñu dimbali ñu defal ñu xeer bi ba nga xam ne nii yoon wi dina mën a ratax ba gone yi dem ak dik bu ñu amee ay welo di dem bu ñu amee ay moto di dem da ciy baax waaw gone yi ci nga xam ne nii ñu ngi ci dëkk bi ñu di leen yebal ñun ñi nga xam ne ñoo doon seeni waajur amuñu fii kur amuñu fii courant pour am machine wal amuñu courant pour am machine sook bu jant xasee so ñu julli tàkkusaan la ñu yebal suñu doom yi dem leen walli leen jaak dañu fay toog ba heure bii ñuy noddu gee dootoo mën a tey def dara yow mii ndey ji bu fekkee sa pare di nga dem gàttandu ji sa doom bu paree wuti sa xel du daal maire yàgg nañ ko am waaye nag suñu maire dañ koy jooytu waaye lii ñu leen di wax dañ koo jooytu suñu maire ba sonn te gisuñu dara kër faranga ngi fi ñaamaa ngi fi kër cekooma ngi fi ci njaanee ngi fi jol jol kàdd gi ya ngi fi jol daqaara ngi fi ndimba gi fi kër yibra euh, sëye ngi fi caaree na ngi fi kër jooja ngi fi dëkk yi bari na. Fallou xanaa lu mu bëgg rek te jooy ñu ko loola ñu ngi ci ndax gis nga ni mu ñu fekke bi muy laata ñëw yaakaar naa kenn ku ne xam ne ne waa Jol góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp taxaw nañ di ko di ko di ko teertu te nii ñu ko teertoo suñu ko wooyee mu wuyuñu ca kaw ca kanam rek ca la jëm te yaakaar na sëñ Fallou moom xam ne ne moom bu taxawee na Jol sax day am ndax Serigne Ndiaye mi mu àndal doon doomu Jol ah ku ko jàppale mu dem ku ko jàppale wuti dañ ko ñaan yàlla jàppale mu dem te sëñ Fallou Baar mi moom ca kaw ca kanam rek lañ koy séentoo. li nu jublu woon ci créer mouvement mooy képp ku am combat rek ñu sotle parce que jol yàgg nay jooy courant yàgg nay jaay ndox yàgg nay jool yoon waaye dafa wéetoon ci combat bi mais jàpp leen ne léegi jeex na dootoo leen ci ndax fu ngeen gestu gis ñu bu soobee yàlla. li may jël muy engagement mooy que ne yàgg ngeen ci politique di sonn kenn ku nekk ngeen topp ci ginnaawam lu ne ngeen def ko. ku ñëw bu yéegee falu fàtte leen loolu jeex na fi parce que amatul kenn ku ñuy topp ci ginnaawam di ko jàppale mais dañuy ànd liggéey dëkk bi doomu jol kenn dootu ko bàyyee ci ginnaaw ci li muy liggéey parce que sëriñ a nga fa keneen a nga fa fa ñuy boogee di fa nas di fa nocci fa la leen di taxawale incha allahu rabbi adduna ak fi mu toll vingt et unième siècle ngeen toll fii wetu cees boo yuuxoo ñu dégg leen nga ñëw fekk dëkk bi ni mu mel nga xam ne kenn bàyyiwu leen xel jeex na fi incha allahu rabbi man ak yéen tànk ak tànk mbagg incha allah li ñuy wut buñ ko jotee courant bi dina dugg ci dëkk bi te du nag ku ma xam-xam ne du ma waxantu ñun lu ñu wax rek lu ñu gëm la. te nga xamante ni tey dañu nekk di politique ci commune bi te seen politique yëpp yam ci commune bu Ndiéyène sirax noo def ba nekk maire dafa xaw a wuute ak ñun ni ñuy doxee. ay ndaw suñu yéene mooy ànd ak yéen ba pare de la république jomb nañ leen a wax lu dëgg ndax bu ëllëgee du ngeen ñu déglu li ñuy am yéene mooy ànd ak yéen xeex ba ëllëgee ngeen dégg président de la république wala ministre wala leneen ak leneen kon jomb nañoo wax lu gëmul. leneen li nga xamante ni maa ngi koy wax mooy jigéenu Jol. ku leen gis xam ne ay jàmbaar ngeen mais gisu kenn ku leen jàppale su ma ko waxee xam naa ko parce que ci domaine banque laay liggéey dangay ngay gis ay nit ñoo xam ne leen wutal ay financement te jot naa ne déggaguma fu ñu yëkkatee financement te ko seen i loxo incha allahu rabbi dinañ fexe ba ngeen am ay financement di liggéey nit nag doo ko may jën da nga koy jàngal ni may nappe tollootuñu fu ñuy ñëw ci dëkk bi di leen foowee naan maye nañ fa cinquante mille toog juróomi at yoo xamante ni du ngeen leen gis bu ñu rombeek seen ay oto duñ leen sax lijjanti ñun ni ñu gëm mooy dañuy ànd ak yéen wan leen ay yoon yu ngeen di jaar mën a liggéey ba bu ëllëgee ngeen mën a jariñ seen ay bo mbokk mën a jariñ seen bopp muy suñu njariñ ñun ñëpp tam ci wàllu njàng mi jël ak position bi mu am tey jii bu ne ay doomam dañoo war a jóge fii dem ba Ndiéyène Sirax ci seemu Ndiéyène Sirax dem jàngi fa xam ngeen ne ñaaw na Ndiéyène Sirax 37 vingt 26 amoo mënoo am lu dul benn seem xale yi di jóge fu nekk di fa dem yoon wi ni mu méttee jàppalewul leen ci ay oto yu leen fa yóbbu wutuñu ay yeneen école yoo xamante ni ay seem di ngeen fa mën a jàng ñu ngi koy ñaawlu dinañ leen ci jàppale o delà ñu wutal leen seem daanu fexe ba doom yi li ñuy yóotu buñ ko jotee ñu am oto boo xamante ni ci lañ leen di yëpp ñuy dem di jàngi yomb na war na mën a nekk su ko waxee war ngeen ko mën a gëm ndax sëriñ ñi nga ñu fii nekk surveillance nekk ci bi jafe-jafe yi xale yi dund yëpp xam na ko te préparé nañ programme boo ni dina am oto boo xamante ni day wër ci commune bi doom yi commune bi yëpp di dem ci école ba di fa jànge mais au delà dinañ fexe wut yeneen i école du ci fàtte ñaama ndax démb dem naa fa fekk fa lu metti lool ndax ñaama ni muy amagul école primaire chef de village bi daf may yëgal ne euh, dem nan ba am ku leen may école primaire mais dañu dem ci maire actuel bi ne ko signature leen bëgg mu ni mënu ko ndax amul table banc waa maire bu mënta wutal école ab dëkk table banc mun ko wutal école lan lay jariñ maire bu fekkee mënta wutal ab dëkkam nu ñu def ba am courant lu muy jariñ waaye maire boo xamante ni lu mat fukki at ñaar mi ngi fi bu weesoo tëkkuwaate amul lu muy def may fàttali parce que dama dem ba wutal leen sax tur ñoom ñaar ñi nga xamante ni fi mu ne ay tëkku lañu jur muy panaas ak waaju baax di leen wax ne seen tëkku yooyu ngeen di tëkku ñun du loolu moo ñu yëngal incha allahu rabbi le 23 janvier dinañ leen fi jëlee te man loolu laa gëm.